والآل والصحب ذوي التعبد يا حاضفا كل جوى وكبد بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang ndokkeel ak baalu di ñaan suñ borom weer jam, ak liñ bëgg ak liñ ci yéene lépp yàlla na def yàlla ñu borom mu melni ni ngi jital Cheikh Mouhamadul Muntaka di ko ndokkeel ci weer wi nga xam moy mooy weeru Touba di weeru alxuraan ta alxuraan rek moy khassida kon moy weeru khassida rawatina nim ko feeñale ci masrub safi bi nga xam joxat na ko jataay yi ñi amal ci weer yi nga xam ne bolé bi ngir bakélo ko bu wakar ñu ngi koy nuyu di ñaanal ak di ñaanal ak wër di ñaanal ak yeggalé ci barkeb ni ko mbokk yi waxe suñu lépp mooma ni ma ko waxe woon daaw lu nu waaye defal rek da koo sof ci ab liggéeyam waaye lépp moo nu ko defal ñu ngi koy sant ak ñaanal di nuyu mboolem waa daayira Tazawudu Chibane mag ak ndaw góor ak jigéen mboolem jëwri nii تم لي بغا وقتانا لي موم نيكو سيري عثمان واخ اك سيري خالد مودي خسيدي سي كواي اك سين غنل سين خالد ديك نيت تومبي كون دانيي دادي تابي رك ci leral tomb yi noonu mu ko jinje yàlla nañ ci sama defal tawfeex bañ indi ci lu doy sëkk euh, mu mel ni laaj na ñu xam ana lan mooy xasida wala ana lan mooy xasaayit ndax ñaar yépp lañuy ñuy wax xasida mooy genn gi خسائط موي باري اي خسائط موي باري واي جن جي موي خسيده باك بينا باك عربي تمام ميغي فري اك جوبلو جوبلو دي نيت كي دي جوبلو سي اي واخام yàq ko ci xasida goo xam ne da koy way du ko wesar waaye da koy way day am li ñuy wax ay peese am na ay nattuwaay fukk ak juróom-benn gën cee fés Xalil ibnu Ahmad al Farahidi defoon baxru yooyu dañ koy faral di tudd léeg-léeg ñu naan baxru rajas léeg-léeg ñu naan basit léeg-léeg ñu naan tawil waafir kaamil ak yu mel noonu xalil itam indil fi baxru yi da koo dajale rek yëg ni lii mënees na koo nattale tudde ko nii waaye fekkoon na ñu ci way te xamuñu nañ tudd dongam bii di al akhfas yokku ci benn baxru ñu koy tudda baxrul mutadaarik muy fukkeel ak juróom benn ginnaaw bi am na yu sasu day am li ñuy wax xaafiya te mooy daaneel daaneel bi mooy mujjantal gi te mooy li mujj ci bayit bu ci nekk loolu mooy way amit li ñu tuddee raw yu te mooy xarf raw yu araf bi nga xam mom moom moom mujj ci xaafiya bi buñ naan xasida bi nuuni yàlla lu mel ñu ne nuuni yàlla wala raiya raaya xasida gi tuddul raaya daaneel bi la rek waaye saadatul muridin la tudd jël xasida ni baa la wala taa iya la lu mel ni xoqal bu kaaw taa iya la euh, kon jublu googu su ci amul donte ay way la des su ko tuddee xasida yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na lu ni nuru te kenn tuddeewu ko xasida keroog bi mu naan ana nabiyu la kazib ana ibnu abdil mutalib wala mutalib loolu kenn du ni moom ab waykat la bi ñuy wax naan xelanti illa isbuun dumiti وفي سبيل الله ما لقيت لولي تام بيس دي ماتنا سك واي ديس كوت دي اي واي دا مون القران داني دو واي كات وما علمناه الشعر وما ينبغي له واي تام فاو بالين كوت دي خسيده لما جيرون نياري بيت faw day mat juróom-ñaari bayit su ko matee daal jaar ci tomb yi ma wax léegi ñu soog a wax ni diw way na ak xasida su ko matul mën naa nekk benn bayit benn bayit ci làkku arab wala ci littérature arab loolu yatiim lañ koy wax mooy bayit girim بيت جرين بيت بو خامني امول اي موك سيرين بي فاجنا تي اي خسيدام بيت بي وخامني يدي لمغنن كريم نافع صمد لا للدراهم تاتي من سليطين بيت بوبو مين كو تي غابون كيرو بين تالالي alal ji ni ko yàlla ñi ngay jaamu mi ngi nii keroog ba muy ñaan tàllal loxoom yi tubaab bi teg ci ëmb xaalis ba mu dóor ko ci kanam gi ca la wax bayit bi bayit bi nag dafa nurook bayit bi ñëw ci rum naa waaye bokkut ak xasida ak rum naa bayit bi ci ñëw bayit boobu ba tey gisaguñ bayit bu àndal am na beneen bayit boo xam ni sëriñ bi moo ko bindoon keroog ba mu siyaaree naawel fekk fa nijaayam sëñ bu soobe sëñ bu soobe ni ko na jàng na jàll dëkk bu ñu wax kumboof fekk fa sëñ maxtaar banda muy ku amoon xam-xam amoon wilaaya moom la ñu tuddee sëñ maxtaar benda si سي مختار مريم سي ميلاد جي دي سي جمعه جي نافله سي مختار بن سي موم موي ويجو سي مالك باسين سي اك سي نور خريس سي كرو دين لا فا سي بي نيك لب سي دك بوبو سي مختار داكو جوخون تيري بو ني واخ ريما حزب الرحيم بشامور مفوتي سي بي ديكو ويتليكو keroog bi ñu koy delloo téere bi sëñ bi da caa bind benn bayit ca kaw daal wax ni man sarrahu naylu asrarin ila nadara fala yuxaariq rimaha cheikhina umara ku bëgg a am ah ay mbóot saa su xoolee bu muy tàggoo téere bii di rimah xisbu bu Cheikh Amadou Fouti bayit ba tey baytu yatiim la bu weesoo loolu mat ñaari bayit loolu nut fa lañ koy tudde bu dee ñaari bayit képp ngay gis te loolu bari na ci bindum sëñ bi xasida bu mel ni xad jaani su'lu min rabbi bi takraaru la siyama inda biiril xayri jarraaru loolu ñaari bay képp la am na xasida bu ñuy wax anta rahimu samadu rahman al muminu al muhaymin al mannaanu xasida googu ñaari bay képp la ak yu bare bare bare su ko ëppee nag mu soog a jóge ci nutfa jëm ci li ñuy wax xetan te mooy aw doge ñu ne diwle def na ab xetan ndax matul juróom-ñaari bayit xëy na ñett la ñett si bayit bari na ci bindum sëñ bi lu mel ni euh, xasida yi nga xam ni am na gum bindoon jox ko sëñ Mbàkke Kajoor daal di cay wax ni sëñ bi ginnaaw bi waayaat na xasida bi ni ku ko xool doo kumba bëy lii ñu wax naan wastaxi min nadaru rabbika alkarim fa adamul xayaa chimatu laim mooy bëy ba ca mujj ci xasida gi nga xam ni xasida googu ñetti bayit la jazaaka yaa xillu ibrahima mawlaaka xasida googu ñetti bayit gépp la lu mel ni mën na ko ëpp dem ci ñeent ba juróom jàpp ñoom allahu min kulli karimin aliyum nafaani xasida yëpp ay xitaan la matul juróom-ñaari bayt kon bu demee ba mat juróom-ñaar nag ñu soog a wax ni xasidaa ngi nii ah kon moom xasida nag nit ki yëg-yëgam rek la ciy tàbbal li mu yëg li mu yëg su ko ci defee dëppoog li ñu wax ñu ni diw way na xasida xasida yi sëñ bi nag moom mooy lépp loo xam ne rote na ci xalimaam bu tedd la buñ koy wax ñun day mel ni teqat la gii day mel ni ñun suñu yoon nekku ci ñun dañuy bëgg mu jógee ci sëñ bi rek bu jógee ci bi rek moo xam way la moo xam wesar boobaa danañ ko yittewoo danañ ko bëgg danañ ko safoo ndax moom waxoon na ko yaa ngi murid yi xay sutaali fi badaa nee na sama murid day sonne ci samay xasida fu mu feeñe da koy jàpp da koy bëgg da koy mokkal da koy nangu fu mu feeñe rek moo xam lii la moo xam lee la xasida yooyu nag ki ko taalif moo tax mu am dayo lool ndax jëmmi Sëñ Tuubaa suñ borom da koo defal waajtaay wow jéggi na dayoo ci xeetu waajtaay yi sëriñ bi suñ borom da koo jox xam-xam bu mës a jox kenn waxiitu uluman lam yakun fi sadri bi jaahi man jaahada yowma albadri suñ borom jox na ma xam-xam boo xam ne du nekk ci dënn ci daraje ki xeexoon badar mu yent bi sallallahu alayhi wa sallam yaquudu uluma alxaybi rabbi muallimi nee na xam-xam bu nëbbu suñ borom moo koy wommat jëme ko ci man daal ni wax ne suñ borom mooy كيماي خمال فان لاكو جيمي الى كلكني فيضا يري اللفظ والمعنى تي سما خول لاكوي دوغال تا بوي دوغ داي بوب مانام دو نيك لو نداو داي ملني انونداسيون خام خام بو باري باري باي ليرال ما بادي ليرال ما ماناي حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتيني المنى والحكم سن بروم مي اني خارن بي خارن نما تا تي موم تي لا ساماي مبت دي بايكو اك ساماي حكمه يقول للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم sun borom mi nga xamne moy daña ko lu kumba momay may lo xamne ak xam akum njàng àggu jëm kon koku preparation bobu la am ci walu xam-xam amit tawfiq ci walu lak wi di lak arab ba sun borom yekati ko jox ko ko awé ko ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam نزع لله اللسان العربي وقاده للنبي العربي يلا موما جوخ لك عرب تكو تي لوخال النبي صلى الله عليه وسلم اندل نكو لقن من الله لسان العربي ذا خدمة للهاشمي العربي سمبرم moo ma sax làmmañu arab ma des di kiy liggéeyal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam àgg ci ni mallakani rabbi lisaan al arabi wa qaadahu wa qaadahu li al arabi su mboroom moomu moom loo moom loolu wax de làkku arab ci loxol yonent bi la ko teg mu wommatal mako ko ma tax sëñ bi daal di tuub mbooleem lu ma sa jëfandikoo ci làkk yi lu dul làkku arab tubtu min al mayli ila gayri lisan al arabiyati wa dafirtu bi xisaan lisan yaxtama an al lugaati la siyama alsinatu al bugaati nena na aw lakam aw làmmiñam suñu borom moko ar ci lakki euh rawatina lakku ñi nga xamni ñoy lakku way beew yi sëriñ bi suñu borom da ko def li ñi tudde at ta'yinur rabbani mom la ko defal moy suñu borom da ko dolel farak mom ci ay wayam boole koog Seydina Jibril mu koy dëgëral te loolu Xasan ibnu sabit la ñu déggoon yonent bi waxoon ko waxoon ni inna ruuxal qudsi maa Hasan ma naafaxa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam Xasaan Seydina Jibril da daan ànd ak moom di ko dëgëral buy ngir ah aar bi ci ay noonam ak seeni wax ak seeni pexe sëriñ bi wax ni waajahani tayidu zil xayrumi fi shaari wa والنظم مع اللزوم بادر لي تأييد ظل الحروم أزمان خدمتي خدمتي وأزمان إخدامي باللزوم سمرا دملكم ba mboolem mbind mi penk ak digg bi kaw ak suuf mu ne su cee génne luy nuru ab safaan walla lu jaarul yoon maanaam ak yàq ñu jéggal ma ci wax ji yaqi xilaaniyal xata wa sahwa باخ كفاني العدا واللهوى سنبر مو فك فقل سمك خليمة نجومت أبيب فكسر مم ميغا خمني أجي دسل لكو غارانتي تطور ميغا خمني موي باخي nga xam ne lu jamono yàgg yàgg bindum sëriñ bi kenn du ci génne loola ndax nee na moomal fegal noon لم ينهو خطي فضول أو كذب ولكتابة الرضاء ينجزي سمم بند أي تاخر أجلل دك نانا دوك جبل مك تنانا ندير ليالا تباكم دي خطو دي داودي دوك سمم بند لساني يحتمى كقلبي والجسد عن الفضول ومبيع ما كسب nee na sama làmmañ mook sama xol ak sama yaram yépp yàlla moo ko aar ci ay mbóosóor te itam samam njaay du xàcc mukk du perte sëriñ bi am tawféexi boroomam ci liggéey bi rafaqtu fi xidmati tawfiiqa xaaliqina almulhimi alxayri ماحي الجهل والألم كوني خادم الرسول والكتاب فضل من الوهاب لا من اكتساب كن موم فاغو تيفلا سن بروم دون لوكو مبولم كو مسا واي يننت بي رواتنا ني ماغ وخدت لي احسانا ورثت في مدح النبي حسانا كن waajtaay bii la sëñ bi am suñ borom soog koo xiir muy way ak a tagg yenent bi ak a liggéey liggéey bu màgg bi mu mel ni sëriñ bi ci way yooyu ni ko sëñ bi waxee yan jublu la amoon ci def xaside yi xaside yi ni mu bare sëñ bi lan la ci jublu sëriñ bi dafa wax ni bokk na ci li muy tax muy def xasida mooy jàngale nawaytu taalifan yukayisul balid li wajhi waahibil jinaani wal xulub man sëriñ bi yéene naa way woo xam ne wala way yoo xam ne dafay dimbali koo xam ne yewwul mu nam am xelam ngir jëmmi suñ borom miy maye ajjana di maye ak sax bokk na ci li tax mu def xasida yi moom sëriñ bi mooy laabire daat nii ilal xattin nasihatu lil wara li wajhi allazi bi qaada ajran wa asafa bokk na ci li tax mu def xasida yi dundal xam-xam xam-xam sëriñ bi dafa fekkoon mu ràpp moo tax mu ni uxyi uluma diini bittaaliifi wa fustu bil maxfiyi wal maaluufi bokk na ci li tax mu def xasida yi sant boromam ak waxtaane li nga xam ne moo di xéewal yi ko yàlla defal wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis moo tax mu ni katabtu zaata xaddusin bi ni'ami إذ واجب fi shar'i shukru ni'ami bokk na ci li tax sëriñ bi def xasida yi mooy yeesal te mooy yeesalkat bi mu doon ci mboorum yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yabuthu uluma diini xatti mujaddidan لنهج النبي إذ رسمه عفا يقرب تاليف علوم التي نأت إلى الناس مز عنهم فؤادي به عفا bokk na ci li tax mu def xasida yi moom sëriñ bi xidma te boo ko dee tënk da nga naan moo di liggéeyal yàlla sëriñ bi ndaa façon na liggéeyal yonent bi liggéeyal yàlla lillahi wajjahtu acwaaman bihi qalami za khidmatin lilladi qad awsala sadada man iltazamtu lahu dayna thana bi salaatin fi duyuri mansuuran wa muntazama daa midaadi wa aqlaami li xidmatihi xawsi ladayka bihi ma xaadahu kurama bokk na ci li tax mu def xasida yi moom sëriñ bi moo di dugal mbégte ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muraadiya idxaalu sururi ala nabi alayhi salaama man aduwi bihi kabba kon bu ñu xamee jubluwaay yi ba noppi des na laaj sëriñ bi kañ la tàmbali dugg ci way ak itam way yan étape la jaar ci moom sëriñ bi naqari naa xam ci bis sàngam wala ak sàngam ci la tàmbali way waaye li wér wóor mooy ci nekk bu wéy juróom Maam Mor Anta ci la tàmbali di def xasida man ci sama gëstu gisaguma xasida goo xam ni jàpp naa ne moo jiitu xasida gi mu wayoon wéy juróom Maam Mor Anta Sali mu ngi tàmbalee ci ayaa man daan ahkaami يا غوث الظليل يا قرن يا ناموس يا قدوز الجيل لنا خذ مديحا مثل دبس مدكك بسكر وراح غير قول الأقاويل أباطيل سأثني عليك اليوم مدحا مشيعا بحمد ورضوان وشكر وتبجيل أما جنن خسدر جو خمني بن صريح ميغي تود مضمنه الالغاز ولا مضمنه الالغاز خاسي دغي بو غيسه نيكو سينجو واي دا فا ملني كوم نيم واي اشين معجمه ييب مامور انت سالي لا تي واي تي جانغال نيم كو جانغال دون واي جوروم نيك بروم خام خام نيك كو يالا جيتال واختي موم لو بال foofu itam def na fa ay xasida yu bari ndax maamam ca barabam ba sëñ bi def na fa xasida goo xam ni xasida tawassul la ci diggante boobu bindante naa xaado yi liman xamat nii baada shaybatin wabama araqaha kilmatay bama wabuma xasida yooyu yëpp sëñ bi ci la ko def ba tey itam ci la tàmbali mbind moo xam ne mooy téere xam-xam yi nga xam ne moom lañuy ñuy jàng tey ba yenn yi way juróom jot na cee jàngal ñenn ci njaboot gi mu mel ni nag sëriñ bi bi mu dikkee rek fekkoon na way moom lu yàgg ndax ñi ngi wax ñaar téeméeri at la jiitu lislaam ñii ni déedéet téeméeri at ak juróom fukk la jiitu lislaam ci la way tàmbali waaye li wér te wóor mooy jaar na ci étape yu bari bi yonent bi ñëwee ginnaaw ñaar téeméeri at yooyu am yeneen waykat yu juddu beneen époque juddu sadrul islaam bi sadrul islaam jeexee umaw yi ñu ñëw état boobu waykat yu bari tàj nañ ci biñ demee abbasid yi dikk ay siècle la ñoom seen étape séddale na ci ñaari étape muy jamono yu yàgg-yàgg ay siècle yu yàgg ba ci mamali gi ba ci turki yi seen époque boobu soo a ñëw ci jamono ji nga xam ne mooy jamono ju mujj ji réew mi tam way yàgg na fi école yu bari Fuuta am na école Tivaouane am na école Sokone am na école ci wàllu littérature école yu baree baree bari ba ci Pire école la ci wàllu littérature waaye sëriñ bi bi mu ñëwee nag bi yëf yi tege ci loxoom am na ak yeesal gu mat sëkk gu ci am ci maanaam boo doon xool ci turu xaside yi rek da cee def ay yeesal yu yéeme ndax la jiitu muy ñëw ci moom lañ xame li ñu tuddee as sayruura ar ruuxiya mooy dox jëm ci suñ borom xaside goo xam ni lu mel ni asiiru ma al abraari xiina asiiru ودلل على اني هناك اسير خاسي دغوك سيغ بي نينكو أسير تي اسيرور روحيا موي دوخ بو خامني داي دوخ جيم تي سون بوروم مسيري مع الاخيار لله بالنبي موي ليمي واخ نان وسيري له لله دون المرنتها كما لكم فضل الله loolu wayu arab xamu ko woon bokk na ci jihaad xasida jihaad sëñ bi xasida yi def ci géej gi lu ci bari bari xasida yi jihaad la moo tax mu naan jaahadtu bil xatti sinina waxdi man lam yakun muwaxidan za jaxmi ba nee na bu ko bàyyiwul woon sax benn yëfër dootul mujj am jàmm ci àdduna moo tax mu bàyyi xasida yooyu xidma sëñ bi moo ko njëkk a def ci wàllu xasida goo xam ne jubluwaay yi xidma lay doon hada wa xasdi xidmatun taqur aynu nabi biha kama tabar نويت من ذا العام خدمة تصر مشفعا به كفيت ما عصر دخلني جالبة المراحل سيمي جبل واجي خدمة لا أك يباري يوخمني بلور وقت ويدنين كتابي واي سيمي ينخيطو بند لدف سيمي خيطو بندم بند li ci gën a yéeme mooy am na ci mbind yoo xam ne sëñ bi moo ko dogu ci dogu boppam bind ko am na xasida yoo xam ne sëñ bi moom ci ak ndooram la doon bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tàkk bëgg lislaam di ko leeral am na ci yooyu dañ koo sàkku ci moom mu bind ko bi fi Maam Mor Anta Sali jógee sëriñ bi dem ba nekk Touba woote yoonu murid maam xaal yi dégg ko boobu sëriñ bi mi ngi fii ci kër Serigne Souhaïbou bu Daaru Rahman lañ ko tudde woon mooy fi ñu nekk fi ñu denc Serigne bu مام خادي بند تي او كير حقا باتو حقا لا بند بوكو دا دون ناتو سيغ بي بيمو نيوي فك نا سيغ بي بند خاسيده الحق البكاء على سادات اموات مام خادي داني كو يلنا سيغ بي نيكو اخا يلنا ني جوي sang soo fi bàyyi ko woon doon liggéeyal lislaam ba bàyyi koo fi ndax tabkil aradi alayhim kas samawaati asamaan ak suuf yëpp dañ leen di jooy man nii sax dama leen di jooy ab kii alayhim nga xam ni am na ci xasida yooyu suñ boroom ci boppam moo ko wax ni ko na ko bind moog yonent bi sallallahu alayhi wa señ bi bi muy tukki biñ ko jëlee ndar mu dem ndakaaw dafa am ñu ñëw ci moom ni ko gouverneur bi la fi jële woon ndar kooku jële nañ ko fi léegi mën nga def appel su ko defee tukki bi ñu bàyyi ko sëñ bi nee na ñu di ma man ma ne di ma man ma ne ba ma jël sama xalima nee na cëpp ko ci daal ji bëgg a bind lettre bu jëm ci gouverneur bu bees bi waaye nee na bi ma cëppee ci daaj ji rek maa ngi dégg kàddu gi di bàyyi ci alxadratu rabbil bariyati nan ma aha atatlubu xaajataka ila maxluqin mislaka duuni ndax léegi da ngay yëkkati sa aajo di ko jëme ci mbindeef bàyyi ma fi man sa borom nee na fa mittu xawfan wa xayaa nee na ma dee wet ngir ragal suñu borom ak kersaw sama digganteel moom nee na summa maxal xadiimu maa xat kataba foofa ma far la ma bindoon ginnaaw ba summa xuutiba lahu biktuba noonu la ko waxee ci jasaaw shakur ginnaaw ba suñu borom ni ko bindal waye gis nga sëñ bi ni mu déggee boromam ba mu bindee rek xasida bi ñëk njëkk a bind mooy wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun bil ibad légui damay jël sama mbir diko ko wékk ci sun borom moy ay alquran bobu la jël def ci xasida go xam ma nga tambalé wa wajjahtu khatiya ila al maliki zil ardina was wasamaai wal muluki amna xasida yoo xam ne tam salaa salama moo ko wax ni ko na ko bindal wax ni karramani xayrul baraya biktubi fi khidmati wallahu yucli kutubi salaa salam moo ma teral ci baatu uktubi ni ma bindal ci liggéeyal ma moo tax yàlla day kawel samay bind am na yi lu bare bare bari lu tax mu bind ko sëñ bi bi mu nekkee jolof sayyidatuna maryama alayhi salaam yaayu am isa dafa ñëw ni ko sama doom ji day seet naa ko àddina nekku fa seet naa ko barsàq tam nekku fa ma bëggoon nga wax ma ci mbiram dara sëñ bi daal ni ko fa kuli washrabi bihi lekkal ko naan te dalal sa xel te xam ne mi ngi ci jàmm moom moom la tëgg fuzzi bi zarfil xasanaat moo tax mu naan yaa umma ruuxil maaliki yaa umma jaalil xaaliki ibnuki laa bi haaliki sa doom ji alkuwul fu mu nekk mu ne inda ali mu masiki inda ali mu masiki mu ngi yàlla suñ borom ndax yàlla moo waxoon ne maa ko yëkkati nga gis ni am na xasida yoo xam ne tam sëñ bi da koo jële maanaam ci aliway suñ borom ja direct la ko ko jële muy ci lawxul mahfuz nga xam ni sëñ bi da koo koppi ca lawxul mahfuz la ko jële loolu bari na ci xaside yi minal lawhil mahfuz minal lawhil mahfuz buñ demee ba ci biir waxtaan wi dinañ ci dellusiwaat sëñ bi def na ci yu bare bare bare bare bare am na ci xaside yoo xam ni tam sëñ bi ginnaaw bi mu leen bindee lañu dem ñoom dañoo dellu aras ndax fa lañ dëkk ndax suñ borom moo nammu ñu nekk aras nekk fa ay wéttal lu mel ni bushraana jam sasuna wala jam sasuna busraana ñaari xasida yooyu yëpp busraana jam sasuna ak jam sasuna busraana ak lu mel ni salaahi bi islaahin wa afwin bila dulmi xasida yooyu ak yeneen di nga gis moo tax mu naan xasidatan murtafiatan ila al arshi wal yi متعلقة بها ولا بها بهما بلا محو أبدا موتاخ موم سيرين بي مو واخني ماغي تو تاي موسلو سي يالا سي شيطان ميغا خامني موي مي ني جام اك سيكي ساكا سي ني سما مبولم بيبي ليكو دالي اساس moy bimu mu Touba ba nim mu nekkee Njaareem nee na xaside yooyu yëpp yim mu fi bindaat ci digënté bi yëpp nee ci lawhul mahfuz la ko jële أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الشك في كون مكاتيبي من مولد أسس إلى يوم خطي هذا الخط من اللوح المحفوظ سنبي mbindam neex naa ràññee lool ndax li ëpp ci mbindam ci tagg yenent bi la jëm tagg yenent bi képp képp mooy yitteem waxtaane ay mayam tawasul ci moom sant yàlla waxtaane ay xéewalam laa biira yi ak waaraate waaye daa bokk ci li ñuy ràññeeb lee mbindum sëñ bi mooy dëggu bi mbindum sëñ Tuubaa dafa dëggu mbind mi dafa dëggu ba góore ci ak dëggu xaw ma ndax dégg ngeen li ma bëgg wax dafa dëggu ba góore ci ak dëggu nga xam ni kenn mënta sikki sàkka ci ni lii mbindum sëñ bi la bokk na ci tam lii firndeel loolu لن وخون ني لم تنحني غوايه او هيما في كل واد او فلان بل لي امان بوك ني تي دام تي بيندوم سيت بي دا فا ام لي ني تودي رمزيه تي تام بي سيت بي دا فا باري اي نيم دا فا ام اي بعد يو خامني اي باتي بوبام لا لو ملني كاح لاج اساسين جامساسين yooyu noonu néew na nga fekk ko ci mbindum keneen moom yëfi boppam la ci li nga xam ne làmboo na dafa am xeetu tawféex yi ko yàlla defal ci alquran yoo xam ne moom rek moo ko man da lay ay saar ci ay mbindam وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واسرح صدره خلال سورة الصرحي لنتي نعم يب يب مملا نعم تبي بو ما ألا نصرح لك وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واسرح صدره خلال معوزتين من قل أعوذ برب الفلاح أكفر أعوذ برب الناس خلو نين كو تگي نياري بيت سيدي ونجنا من شر ذي حسد مع شر الفم وشر العين يلاه وشر سحر وشر الخلق انسهم مع جنهم وضواب السم يلاه جرومي شر نيو نيو نيو تي نياري ساري موم لا ديف نياري بيت لي مو ساري موم لا بيت ci ni muy tënke xasida da ngay gis xasida goo xam ne danaan alifun wa sinun wa mimun wala mu ni kaaf ha ya ayn sad wala mu ni min yowmil isnayni wala mu ni muharram wala mu ni merci xasida goo xam ne merci la koy tëggee miladi wa aqlami wa qalbi wa jismani li mugnin karimin li yusaxiru azmani yooyu ci moom rek nga koy fekk yàlla defal ko ci tawféex goo xam ne moo tax mbindam neex naa xàmmee waaye tam baat yi nekk ci mbindam ci mbindam rek la nekk ndax yàlla moo ko jox naxu jox ko arud jox ko bayaan an naxu wal arudu wal bayaanu li sulibat wali biha ayaanu waaye teggin yi sëñ bi dafa ami teggina ami teggin ba way yi lépp teggin la limaaxin bashirin saana kulli ma arra'i madiixi ma al aadaabi wal ilmi wa sa'i foo jëme say wax mu ni ci farkatu bàkkaar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii borom bégle gi waaye nag day ànd ak i teggin mu ni tafiqtu unaadil Moustapha zaata addubi tàmbali naa damay way yenent bi nooy mel mu ni zaata addubi damay ami teggin wa qad zax zaxal ahl ahla tajannubi day bari li ñuy wax luzumu maa la yalzam ndax suñu borom مقرفا لهم كزمت ما علي يلزم وراض لي لزوم ما لا يلزم خسيدتم بوكنا تي لي تي راغنيكو موي باري خسيده دافا باري خسيده نيت دينا دوندو با فاتو تا ام خسيده يو مسلنا تكبل مسلنا امي تام ndol ku am khasside amul دون الكلان يا اخنا واي كان امر خسيده ظففت لله ابكارا مخلده ولا يراها سوى خير الورى ابدا تموني ينت غيسول مو اوب نك نانا يو بس تقلا سي ديف يو خامي ينت صلى الله عليه وسلم رك كو ورا غيس مو يين دوجال سي گيل جي يي مستقبل كو سي اي تان يي مو غاسكسول لو سي نك مو ديف كو waaye mu bokk ci mooy responsabilité yi léeg-léeg nga dégg xasida bu ñu koy askanale waaye responsabilité yi du ñëw te sëñ bi dafa ñeme responsabilité bu responsabilité yi ñëwul rek da xam ni du xasidaam bokk na ci li ñuy tudde ak durarul mukarrara mooy tëmbi wurus yi nga xam ni dafay ñëw di ñëwaat léeg mu bind xasida ba noppi bindaat ko lu mel ni gés bu sindi di bind na ko ay yoon muqaddamaat noonu moo tax mu naan suxtaliyal masunata al muharrara qabilta minni ad durara al mukarrara xam naa dañuy njëkkanteeg waxtu wi étape yi nga xam ne mbind mi romb na ko sëñ bi am na lu jiitu géej muy la jiitu bi nga xam ne tàmbali naa liggéey ndax bi 1301 jotee sëñ bi dafa tuub mbooleem li mu weesu woon tàmbali dugg ci liggéey bi foofii ba keroog muy dem ci géej gi ab étape la sëñ bi def na fi xaside yu baree baree bari ca ba mu tàmbalee Mbàkke Kajoor Mbàkke Bawol Daaru Salaam Touba diggante boobu sëñ bi fi la taalife sindiidi xoqal bu kaawu ci la ko taalife man ci étape bobu la ko taalife matlabul fawzaini ar raiya raiya ci keur seigne jean bu gogu la ko taalife dar rahman gogu fofu la ko taalife raiya xasida yu bari la mansel lu mel ni xapaaba xalbiya lamallahu sallama ni ak miiniya ak hamad suleyman xasida yoy ñom ñom ñom ñom mansel ñom bokku benn benn jamono bu leen sëñ bi def ginnaaw ba tam sëñ bi bi mu tukkee diggante géej gi lépp muy ay dëkk yu wuute Libreville Mayomba Karambasa Dahomey foofu yëpp def na fa lu bari wala xad karam naa bi fasat xilaamil yowma bil xayrayni ala inani usni ala inani arju جالبة المراغب حدائق الفضائل رضيت عن المولى xaside yu bari waaye nag ginnaaw ba nag bi ñu àggee ci étape bi nga xam ne mooy ama shahid na bi karam mooy kasasin kasas bi ñu fi ñëwee nga xam ne sëñ bi mi ngi gànnaar ba keroog muy ñëw njaareem di wuy ji boromam foofa sëñ bi def na fa lu bare bare bare bare bare ci ay xasida moom itam rabbi bi maa bi mu ñibbisee daaru naan la ko defee yaa jumlatan itam ci foofu la rek bi muy génn di dem xasida gi nga xam ne mi ngi ko tëggee waxasin mi ngi ko defee jolof alxaqu min rabbikum jolof la ko defee ci weeru koor wi bi mu ñëwee ba sànnu si kër sëñ siréloo fa la defee xasida bu ñuy wax maramiya indallahi ahwihi sarmadan nga xam ni bi mu ñibbisee tam yeesalaat na ay xasida yu bari jolof laal na fa jaalibatul maraaxib yeesal ko mu xaddamaat yeesal na ko fa jurbel def na fa nuur daare ni ak xasida yooyu ma wax yëpp busraana jam sasuna ak ñoom jamaatali maalam yakun ak xasida gi ma doon wax léegi malaktu bi fadlillahi ma kaana yustaha wa sayri lahu lillahi duunal mirantaha wala wa sayri lahu min qablu duunal mirantaha sëñ bi ni ko tëggee man jaa bil xasanati fa lahu xayrun minha xasida googu sëñ bi da daan tere ku neexul baat di ko jàng mooy malaktu bi fadlillahi ma kaana yustaha taxawoon na ci tam ba bañ ku neexul baat du ko jàng moom xasida gi ci boppam neexaay bi dafa dafa jéggi dayoo sëñ bi foofu am na benn seetlu bu am solo sëñ bi bi mu toogee ba benn jamono dafa bind ni ah moom day warlul na képp ku aju ci moom bindal ko ay bind yoo xamante ni njariñ yépp a ngi ci loolu nag ñoo jullit ñëpp a ko bokk waaye nee na lépp lu mu bindoon ci géej liggéey yonent bi sallallahu alayhi la ak sikar ak sant ak jihaad du loolu waaye képp koo xam ni dafa bëgg jariñ na ñëw ci xasida yi mu bindoon ci ama shahid naa bi karam moom ci boppam da jàppoon ni ba bind ni xaside yu njëkk ya kenn nangoo ko moom sëñ bi moo ko bind ci boppam mu toog ñaar fukki at sun borom sok ko xamal ni xaside yooyu yëpp li nga def yëpp dañ koo nangu ya man jamia min asasin li balsasin waaye nag waxoo ma ko woon kañ nga ma ko wax mu nabbihan fi zaaka amal lasasin bi mu ñëwee ba amal lasasin ci la ko suñ borom si sooko wax ni ko li nga weesu yëpp dañ koo nam moo tax kon xasida yi ci tënk rek am na ngëneel yu yaatu ku bëgg a tuubal suñ borom na jàpp taxmiis taxmiis خزينة لوغو ماغ شي ابو مديان الغوث موكو ديفون واي ديكو سين بي لالاتي ووتانا واي نك استغفر الله استغفر الله العظيم واتوب موكو غنا غات غن كو غاو استغفر الله العظيم واتوب اليه من ظواهر ومن غيوب موكو غنا غات غن كو غاو التوبه النصوح aljaalibatu lil anwaari wal futuux bi nga xam ni mi ngi tàmbalee xamdan li rabbina al xarib al xaafiri danbil mujib day dindi ay bàkkaar tub bu sew ci zikar tudd yàlla waskurullaha fi ayaamin maadudaatin ñaar yëpp nag muy wajjahtu kulliya daa qurbin min allahi ak wajjahtu wajhiya daa qurbin min allahi ñaar yëpp bu ci nekk ku bëgg tudd yàlla sëñ bi daf koo wax ni euh, mi ngi ko tëggee wazkurullaha fi ayaamin maadudatin man koy wax naan sama xasida gi na nga ko def mu gën nekk ci zikar yi la gënal mooy ñaar am na ku mas a ci sëñ bi nan ko mu mukarama ak madinatul munawwara lépp nga fa lépp fa la daje mbax gep sëñ bi daal ni ana fere yi ku ci mokal xasida bi waskurullaha am ku jóg tàmbali wajjahtu wajhiya da khurbin min allah bi jahi ahmad sa shawqi ila allah bam agge ba da'utuka al yawma fi l ayaami murtajiyan sawaaba man xajja bayta raziqillahi sëñ bi ni ko doy naa yam ni ko bëyit boobu ku ko wax benn yoon aj màkka ajbuñu nangu ku ko wax ñaar yoon aj nga umra nga aj ak umra gu ñu nangu ku ko wax ñett yoon muy noona دعوتك اليوم fil الأيام mubtaghiyan wala murtajiyan ثواب man hajja bayta الرازق ci julli ci yenent bi duru samin am ci morom fawzul mutia xadaaiqul fadaili kanzul muhtadin جالبه المراغب مفاز البشري نور الدارين كي سانيو تي اي نون رك حسن الابرار امو تي مروم وقاني حفيظ سيد توبا نانا بيني بيند وخاني نانا بوب تي كاو بلال لا دا ديفل تي لاي جابي دم نا با تي كاو بلال لاي جابي واي نانا لي نيكون تي موم بوبا وخاني حفيظ رك كوكو مانا ديمشي marah muni mu ni lu mënta bind ci nit mba mu def ko ci leneen mënu ko mom waxani hafizum señ bi mi ngi ko tëggee wallahu yaasimuka min annaas xam ngeen ni yent bi dañ ko daa garde yooyu si ko waaye bi aaya bi wàccee la ni bu ko kenn garde wallahu yaasimuka min nas kon señ bi mi ngi may xamal ni waxtu wi mat na ku bëgg jàng xam-xam bëgg nay jàng suqul maxaamida ilayka yaa jalil xasida bu doy waar la ci kiis atlubu minka al ilma qabla al amali fantaqil jahla wa qud li amali fii la ñu ko jàngale woon ni ñu la jiitu ngay jàng ab bind ak boo ko jàngee ba noppi waaye amul morom xasida yi kon yu bari la ci njariñ sooy dem màkka dangay ngay jël madxu nabiyil muntaqa zadul ilaa yóbbaale ko boo demee di ko jàng foofu ca barab xasida googu loolu lay jariñ yóbbal la kuy jëm màkk soo dee faju matlabu shifaa yi moo ci man ngoon ak suba sëñ bi nag boo koy defal da def da ngay tàmbalee fi mu tàmbalee wa dum alayhi fil masaa ila wax wa sabaax doo doo doo doo burle étape wa ida maritu tam def na ko fa huwa yashfini yaa rabbi bil mustafa al muxtaari bil mudari xasida la koo xam ne maa ngi koy dénkaane di ko dénkaane di ko dénkaane ngir firnde ji ma ci am ci saafara ku tawat amu ci morom euh, ngir ko am ndox sëñ bi def na xasida gu tudd jaalibatul miyaax booy gas ab teen ba ji bu tëwee taw sax am na yeneen xasida yuñ bindoon di ko tasaare xasida yooyu ci la bokk boo bëggee soxna xasidataani li talabi zawjatin saaliha nga xam ni la goo xam ni yi bari na ci lool dama koy tënk ndax waxtu kon xasida yi doy na sëkk rek ñu ni mbootum laa ilaha illallah sun borom da koo def ci xasida yi ila tawalifi yaqudullahu asraara laa ilaha illallah ila tawalifi yaqudullahu anwaara laa ilaha illallah ila tawalifi yaqudullahu xuyuura laa ilaha illallah ila tawalifi yaqulu llahu irshada la ilaha illa allah xasida yi sëñ bi nee na bu jamono jaxasoo soo wëree wër amob sëriñ na nga jàpp ci mbindum ñu baax ñi mbindum ñu baax ñi nag ba nga koy wax mbindam lay wax ñun ñun boobu ñun ñun ñii na xam ne mbindam la ñuy wax moo tax من كتابتي فاقت شيوخ الترخية وكل خير وشيوخ التربية خسدي دفداني الينتي هجت قصائد قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا خسدي موكا ومبولم جامو يالا يونيت مسدف mbaa yum دون a العبادات duuna تغروا بكل المزايا جماعة نانا جامو يالا يب يب بوما نخلات تي سوف خسيدة إلى نك سما توكي بي مو داجال مبولم خيوالي دفاي بيغل يانن توبي تبسم المختار من جناسي منذ به بدا بك الخناسي داي جويلو ابليس كتابتي تبشر المشفعة وعند ابليس تفوق المدفعه day bëggal yenent bi te nee na raw kanu ca iblis mboolem xasida yi gaa ñu baax ñëpp ñëpp ñëpp moo leen kawe xasidati faaxat xasaid al kiram wali taqudu abadan al maram kon nag ñu tënk waaye suñ ci bëggee jariñu ni ñuy def xasida jariñu ci moo gën yomb ci luy yomb te mooy jébbalu gis nga yoonu murit looy wax rek jébbalul ba noppi ponk bi ci njëkk mooy boo jébbalu jébbalu gu wér nag laa wax mooy bi ngay jébbalu demal ci sëñ bi fekk summeeku nga ci mbooleem xeetu looy bëgg jébbal ko sa bopp ngir yàlla boo ko defee booy jàng xasida muy am effet la ca nag moo la ciy dimbali mooy suufe xasida ku suufewul du làq mbóotam suufe ku kawe da koy jàng nii rek waaye du ko mës sëriñ bi tam mbóotam du ko def ci ku ñàkk yërmande mooy dangay ngay ëmbal mbindeef yëpp yërmande ñëpp nga yërëm leen te yàlla tax soo ko defee sëñ bi yëkkati mbiram jox la nga am ci firnde waaye lii fulla li sëñ euh, euh, sëñ bi sëñ Cheikh Samba Diarra Mbaye di wax naan gis ñam wu neex te lekkoo ko loolu amul benn njariñ sëñ bi ñuy dund ci moom dem ba barsàq te xaside yi amuñ ci firnde loolu dara jaru ko kenn ku ne war naa am firnde ci xaside yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa تقدريك لما لا حمزري